مرامي عند الله أويس المدى بجاه الذي أعلى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokk téléspectateurs yéen ñi nga xam ne yéen stan seen télévision Gambia ni leen ko diggoon rek ñoo ngi fii ci jumaay Touba ci guddi gu tedd gi guddi gu màgg gi waaye tamit guddi gën ji mu ñëw guddi gi nga xam ne ci la ñuy fàttaliku dikkub jamono kii di yonent bi sallallahu alayhi wa loolu sax moo waral ba jamono ji fii ci jumaay Touba ñaari kuréel yu ràññeeku ci njëkk bi mooy muqaddamatul xidma mi nga xam ne mooy taxawu jëmmu barab bi waaye itam kuréel bi nga xam ne moo di romb rayaat yi ràññeeku ci wàllum gëstu ak wesaare mbind ak njàngalem sëriñ bi loolee nag moo waral mu dëkk fii ci li nga xam ne mooy kàddu yi nga xam ne ak jigéen gi nga xam ne seen télévision almouridiya diggal na leen jotaay bii fas na leen dëkkal anam bi nga xam ne moom la ñu dundalee guddi gu bii bi fi nekkee nag gis nañ matuwaay yoo xam ne fës na lool ci organisation keem ni nga xamee noonu noonu la ko organisateurs yi nekk ci barab bi taxawee woon ci diir bi nga xamee ne jote woon nañ diggal ci xale xalifa général des mourides Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké ci màggal gi ñu génn moom sëriñ bi sax moo daal di sàkku rek gën a feddale lëkkaloo gi nga xam ne war na ci ñaari kuréel yooyu ci anam bi nga xam ne noonu la ñu fas yéene dundalee barab bi bu ñu noppee dañu daal di xuus saafonteeg kilifa nga xam ne ñoo sant barab bi dëgtal leen ana ci yan anam ana ci yan ponk ana ci yan matukaay ak i taaral la ñuy màggalee guddi gën ji mu neef mooy guddi Mawlid. jërëjëf maa ngi lay nuyu di nuyu mboolem téléspectateur u Al Mouridiyyah di leen jaajëfal di leen ndokkeel ci bis bu màgg bi ñu nekk di guddi gën di mbindeef euh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, di jiital ci nuyoo boobu ak ziar bi Cheikh Mouhamadul Mountakha euh, mi fi nekkal Cheikhul Khadim di ko ñaan mu yàgg di ko ñaanal mu yàgg fii loolu te wér ak njabootu Cheikhul Khadim bi yëpp. ni nga ko waxee noonu la daayira Muxaddamatul Xidma daana dundal guddi gàmmu naka jekk waaye daf ko daan dundale ci fële ca siège social am ci kër sëñ Afia Bousso bi ñu demee ba ci jamonoy Cheikh Sidil Muxtaar nag ci la sëñ Sidil Muxtaar jox ñu digal daayira Muxaddamatul Xidma mu lëkkaloo ak daayiratu Rawdu Rayaaxiin ngir ñu ñëw ci jumaa ji di ko fi dundale ngir mu gën a yaatu gën a jëmm gën a itam organisé wu te gis nañ ne taalibe yu bëree bëri guddi gi dañuy faral di ñëw ci jumaa ji di def seen zikkar di jàng alxuraan di jàng xasida kon dana baax mbooloo mu leen di gunge ci wàllu organisation bi ak nekkin wi loolu nag moo sabab daayira Muxaddamatul Xidma euh, di organiser guddi gàmm gi ànd koog Rawdu Rayaahiin ci biir organisation boobu itam dañ koo xaaj ay pàcc am na ci loo xamante ni ci wàllu culture la jëm ndax ku nekk xam na ne sëñ bi bi mu dafa wax ne nañ ko dëppale ak ni ko Serigne Touba daan defee Serigne bi nag ni mu ko daan defee njaareem siiw na ci ne daanañ jàng alxuraan fukki kaamil ak ñaar ñu itam def ñetti kuréelu jàng kuréelu jës xulub kuréelu mu xaddamaatul am daa ak kuréelu mu waaxi bu naafe daana jàng itam benn bunt ci barzan bu ko defee bu fukki bayit ak ñaar ci jas bu fukki bayit ak ñaar ma waaxi bu fukki bayit ak ñaar mu xaddamaat daal di jàng benn buntu barzan noonu lañ daan wéyee ba guddi gi ba guddi gi jeex ba fajar jot noonu itam la ko euh, mu xaddamaatul xidma di defee ci jumaa ji ñetti kuréel yooyu ñoo ñoo ci am lu jiitu kuréel googu nag am na benn waxtaan boo xam ne moom lañ jiital mooy bii di daw nii ñu waxtaan waxtaane dundu Yonent bi salaay salaam ak lenn ci ay jikkoom ak ay melokaanam ngir ñu mën koo roy ndax ñun ñëpp xam nañ ne Yonent bi salaay salaam mooy royukaayu jullit ñëpp na suñu jàmbaar ji di Seexul Xadim léppam Yonent bi salaay salaam la woon xam nag waxtaane meloka juddu jikko Yonent bi ci guddi gi dafay mel ne lu ومني تقبل organisation bi itam am na ci loo xamante ni ci wàllu mise en place bu organisation bi ndax xam nga ne daayira Muxaddamatul Xidma bi muy sosu Serigne Saliou bokk na ci mission bi mu leen joxoon li ci gën a fees mooy nañ fexe ba góor ñi ak jigéen ñi di xàjjali ko ci barab yi rawatina ci jullikaay yi kon nag bu xew-xew yu mel ni amee loolu itam dañ cee war a gën a góorgóorlu ba ndigal loolu mën a kii tax na gis nga dispositif yi ñu jël ci wàllu ay barrière fexe ba góor ñi fi ñuy jaar ak fi jigéen ñi jaar du ñu bokk fi ñuy toog ak fi jigéen ñiy toog du ñu bokk ñuy drus ñu ber leen kuréel yi fi ñuy nekk ñu ber leen ñu jàng alxuraan ñu ber leen ba lépp daal mën a tege ci yoon yi tanzimuhu bis sunnati yaquduna lil jannati jooju sëriñ bi wax ñu mën koo dundal ci sunna ndax mooy li ñuy jariñ bu ko defee am na ci yeneen kuréel yoo xamante ni tam dañ leen a nga xam ne ñoom séddale wàllu xéewal yi rek la ñuy liggéeyee ñoom itam lu aju ci ñam yi lu ñuy naan wala lu ñuy lekk ni ko sëriñ bi waxee bi sukkarin aw laxaam yi ñoom itam ñu nga ca fànn googu waaye itam mm, gàmm gi ren dafa ñëw ci benn contexte boo xamante ni itam dafa jar bàyyi xel ndax Cheikh Mamadou Mountakha bi weeri feeñee ñu dem ci moom ngir di yees lu waat ndigalul gàmm gi daf ñoo xamal ne na ngeen ko def ni ngeen taxawa woon màggal gi te ku nekk gis na màggalu Touba mbooloo mu bari mi ñëwoon ci jumaa ji waaye fexe nañ ba sàmmonte woo nag ni ko waa kër docteur waxee ba ñu mën a moytu lépp loo xam ne day tax tasaare feebar bi mën a am loolu itam def nañ ko ci wàllu raxasu ci wàllu jéem a sore suñ kem kattan ci wàllu sensibiliser nit ñi ñuy takk masque loolu itam ñu ngi fi am na itam am na benn dispositif bu ñu jël lëkkaloo ak waa district sanitaire muy benn infirmerie bu ñu def ci biir jumaa ji fi may wax ak yow ay médecin ña nga fa am ay garab am seeni jumtukaay yëpp ba ñaanuñu ko yàlla waaye tey koo xamante ne yaram am na lu ci naqari dañ ko fa mën a yóbbu man koo defal ay premiers soins wala sax ñu faj ko fa ba lam doon jàmbat mu saafaraw loolu lépp jël nañ ko. ci wàllu sécurité itam def nañ ci ay matukaay yu rëy yoo xam ne jokkoon nañu ak commissaire Bassirou Sarr mi nga xam ne moo jiitee commissaire spécial bu Touba moom itam yebal na fi ab euh, équipe bu bari ci ay policiers ñoom itam ñoom la àndal ngir ñu mën a assurer sécurité bi ci porte yi ak accès yi bëgg nañ daal lépp loo xamante ni euh, ñoo ñu ko seqal seen xam-xam ca la màcc ñu lëkkaloo ci ak ñoom bàyyee leen ko ñu euh, ànd ak ñoom ci liggéey boobu. وأبقى وسيلتي عليه سلام مسلم ليس ci kanam tuuti bëggoon nañ bu waxtaan bi jeexee euh, daayira Muxaddamatul Xidma ak Rawdu Rayaahiin àndandoo bala ñooy tàmbali njàng mi yëkkati genn kaddu goo xamante ni ni ko Cheikh Mouhamadoul Mountakha waxee dañuy ñaawlu jëf ju ñaaw jooju ñu teg ci sang bu tedd boobu sallallahu alayhi wa sallam te xam nañ ne bu fi Cheikhul Khadim nekkoon moo koy njëkk a ñaawlu ndax ku nekk yëg na ne bi muy nekk njaareem tontu woon na Musaylamatul Kassab mi nga xam ne moo doon ŋàññ yonent bi salaay salaam cay jamonoom sëriñ bi di ko tontu ci njaareem te loolu diggante boobu xam nañ ne ay junni junni at la way yem ca woyoon ba léegi mi ngi fi zalla Musaylamata xiina jaara man fi sama wala ardi laa yu jaara zillata man fil qawmi xat taxawata wa baala uryaanan wa jëhran darata loolu day wone ne sëriñ bi moom képp ku mas ne ñaas yonente bi danga ko dana la ne ñaas ñaas loola nag taxawaay boobu nag la taalibi yëpp war a am te Cheikh mun Mountakha taxawaay bu dëgër boobu la am yonente bi salaay salaam day koo xam ne jamono boo xamante ni wane nañ ci ak ñaawal ci moom wala ak ŋàññi dafay mel ne jamono boobu na ko askan wi di gën a dëgmal askan wi di ko gën a jox bopp surtout jamono bii ñu ko defee nag nga xam ne ci la ñuy fàttaliku ak ganek am loolu dafay mel ne suñu borom sax daf fee bëgg a jaare pour wane waat yonent bi salaay ndax ndaxte dana may ay millions millions de personne ci àddina bi yoo xam danañ gëstu yi kan mooy Muhammad salaay salaam ki nga xamante ni moom la ñaaw jëfkatu ñaawkatu tef boobu jéem a ñaawal du wax ne sax ñaawal ndax doon na koo xam ne kenn mënu koo ñaawal. dégg nga inna abal xaasimi laa kaasu xaasu bi basharin dalla allazina xaasu loolu la Cheikhul Khadim wax da bàyyi abul kaasim jii muy Muhammad sallallahu alayhi wasallam kenn du ko tëkkaleeg benn mbindeef képp ku ko tëkkaleeg benn mbindeef kooku aji réer lay doon kon loolu mooy li wér kon nag mel na ne jëf jooju ñaawlu gi ko Cheikh Mouhamadul ñaaw lu ñëpp dégg nañ ko ci kaddu porte parole am en personne démb bi fi ambassadeur Iran bi mu ñëwee ñëpp gis nañ wax ju jam ca wax waaye itam joxe ndigal ci Rawdu Rayaahin ñu bind ci benn communiqué waaye itam wax ne bépp kuréelu kuréelu diine la nañ taxaw lu ko ndax ñun kat amuñu lu du yonente bi salaay salaam suñu jàmbaar ji léppam yonente bi salaay salaam la ko joxoon dundam gépp yonente bi la ko joxoon xarixtu fii baxri mahabbatin nabi sopp géeju bëgg yonente bi salaay salaam da cee rab lab kon nag bis bii bu ñëwee ñu koy fàttali ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam tombeek loolu jëf jooju jullit ñëpp war nañ cee yëkk seen kàddu ñaawlu ko ba fa ñaawlu yam rawatina ñun ñi nga xam ne ñoo njabootu Cheikhul Khadim يا ذا خديم سرمدا

dispositif dispositif yi ñu waroon a jël yëpp ñi nga xam ne ñoo yor wàllu njàngum alxuraan bi wàllu durus bi ña ngay séddale kaamil yi ñee di séddale diwaanu salawaat yi ñi nga xamante ni sax ñoo yor mbàllum wàllum parfum yeeg xeeti gëtt gi ñoom itam ñaga ca ngir fépp fu nit toog ñu mën laa fekk ak gëtt gu kii ni ko sëriñ bi daan defee ndax ñi daan jàng dañ leen daan tuur laj koloñ ak ay xéewal kon daal ci tënk lii mooy organisation bi nga xam ne daayira Muxaddamatul Xidma lëkkaloo ak daayira Rawdu Rayaahiin def nañ ko ndax sëriñ bi dafa gis ne kuréel lañ yoo xamante ni xëy na ñoom ñëpp ci xam-xam la ñuy yëngu ñiy yëngu ci xam-xam ñiy yëngu ci organisation buñ leen boolee lépp jàkk te gis ngeen ne gàmm gi yaatu na yaatu boo xamante ni foo dem njabootu Seexul Xaddim gi ña nga fa biir kër sëriñ Touba gi boo demee Hizbut Tarqiyyah ma nga fa nekkandoo fa ak sëriñ ah, boo ñëwee fii ci jumaa ji Muxaddamatul Xidma ak Rawdu Rayaahin na fa feneen ak feneen feneen ak feneen lépp nag di mbégum mbégum jullit ñëpp rek doon ay xéewal yoo xamante ni sëriñ Touba moo ñu ko fàggul kon ñu di ñaan rek mboolem luñ ci ñaan yàlla na ko suñu borom nangu te sotti ko ci réewum Sénégal sotti ko ci mboolem réewum jullit yi bépp jafe boo xamante ne mi ngi ci kaw jullit ñi yàlla na ko suñu borom teggi mbas mi nga xam ne moo nekk ci àdduna bi te lëmbe ko xatal ko ba agsi ci suñu réew mi ci Sénégal yàlla na ko fi yàlla jeexal takk ba ñëpp mën a delluwaat ci seen i yitte ni ko Cheikh Mouhamadul Mountakha ñaane yàlla na suñu borom nangu ñaan yooyu yëpp ci barke borom barab bu tedd bi Cheikhul Khadim